alaikum mbokki xarit ñu dans suñu émission monsieur le maire sur euh, Thiès TV tey nañu daral euh, suñu invité spécial du monsieur le maire Serigne Fallou Fall du maire bu Ndiéyène Sire mais également nek chef religieux ci euh, Ndouf nek tamit imam ratib bu Ndouf mais également nek ambassadeur plénipotentiaire mon mi Serigne Fallou Fall du maire bu Ndiéyène Sire monsieur le maire dañ lay wax Wa alaikum salam wa rahmatullah Omar ma ngi lay nuyu ma ngi nuyu itam képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloo alors monsieur le maire euh, en tant que tay li nga xamantane rek mom moy liggéey bi nga xam amal nga ko ci euh, Ndiéyène Sirakh tay yaay euh, maire bu commune bu Ndiéyène sirax tay buñ doon xol ci li nga xamante walu wàllu bilan bu ñu xoolee ba ba léegi 2000 ki ba léegi yene nek maire yore ko tay buñ doon xol ci walu bilan ci li nga xam walu santé la parce que dañuy gis ni toujours liñ ñu daan wax bu njëkk. communes rurales yi dañuy am ay jafe-jafe ci ay case de santé ay poste de santé tey euh, Fallou Fall maire bu doon wax ci li nga xam ne rek mooy carte sanitaire bu euh, Ndiéyène Sira ci yan lay aatu. waaw alhamdulilah euh, Omar damay sant yàlla rek parce que ci wàllu santé dafa bokkoon ci samay prioritaire ñett yi nga xam ne moom laa gënoon a bàyyi xel bi may agsi ci commune yi Ndiéyène Sira foofu ma fàttali ne yàlla dogal na 2002 man maa nekk premier vice président conseil rural de Ndiéyène Sira

boo demee poste de santé bi nekkoon Mbuloxteen nga xam ne dafa yàqu woon ba ku ñu fa affecté liggéey sax euh, doo ko bëgg ñu yóbbu fa nit da jafe woon na ndax na mu mel yàlla dimbali nañu ba dafa defar nañu ko ak plus de 150 millions tabax defar nañ poste de santé defar fa maternité defar fa logement sage-femme defar fa logement IGP noonu itam kafak gi ma wax léegi am na logement IGP ak maternité plus poste de santé boo demee jéem sarax tey en ces postes de santé ya leneen la ñu ca xalaat waaye ma nga ñu teg côté euh, ci wàllu euh, biir commune biir njéen sarax itam poste de santé ba fa nekkoon nga xam ne plan international moo ñu ko defaraloon bi ñu dikkee réhabilité nañ ko defaraat defaraat ko gën ko jàkkal ba mu dëppoo ak jamono Euh, case de santé nag moom fii ma toll di wax ak yow amul benn village ci Ndiéyène Sirah bu ñu mënatee tabax case de santé parce que dis euh, médecin chef district bi ci boppam gis na ne li ñu tabax ci ay case de santé ci Ndiéyène Sirah doy na sëkk. mooy dëkk bu mag boo gis ci Ndiéyène Sirah rek def naa fa case de santé. Mm-hmm. alors ci wàllu li nga xam ne rek mooy wàllu évacuation sanitaire yi mais est que tey am ngeen rek ay ambulance yi nga xamante ni dina yombal li nga xam ne rek mooy dem beeg dikk bi ci malade yi ko aajowoo.

nga xam ne moo ëpp tey ci poste de santé yi nekk département Thiès laaj na ambulance bu wuute ak ba fa ne njéen sarax amul ambulance mbulaxteen amul ambulance te itam nag xam nga ne yow mi xam njéen sarax xam nga ne dafa enclavé wu euh, président de la république ci kanam première ministre ak ay kilifa waxoon nañu ne dinañu nu jox ambulance noo gisee nu ambulance boobu di ci am yaakaar parce que président Sall moom xaw ma ko ci kuy wax luy dañ waxoon na ma bi ñuy waaj élection yi ne dina ma jox ambulance waxoon naa ko population yi population yëpp ñu ngi koy séenu waaye accès gu la Euh, alors monsieur le maire bu ñuy xool toujours rek wax nga léegi euh, comité de santé bi organisation moo tax ngeen di am résultat bi ngeen am nii tey buñ koy xool parce que ci wàllu poste de santé yi nga xam ne réhabilité di ngeen mais également ak yéen def ak coopération allemande mais tey wàllu euh, nga xamante ne yéen en tant que collectivité locale naka ngeen leen di jàppale pour liggéey bi gën a yem. waaw comité de santé yi ñoom bi ñu ñëwee man li ma njëkk def mooy comité de santé yépp la renouvelé. Euh, seet ay nit ñuy liggéey ñu xam am ci ñoom yaakaar askan ñi ñoo am ci ñoom kóolute ñu teg leen fa ñuy liggéey euh, vraiment kenn ku ci nekk itam yaa ngi def résultat ñun itam commune bi noo ngi góorgóorlu at mu nekk ñu jox leen dotation ci ay médicaments leneen loo xam ne mën nañ leen koo jàppale ci organisation yi tam ñu jàppale leen ba noppi nag bàyyi leen ak seen liggéey commune bi daf leen bàyyi ak seen liggéey ñu am autonomie di liggéey bu ñu war a liggéeyee di sàmmonteeg seen i loi ak seen i yi nga xam ne ci biir réew mi noonu la comité de santé yi war a doxe ba ñoom itam ñu ngi def ay résultats yoo xam ne macha allah noo ngi ciy sant boo demoon tey teen Euh, ancien poste de santé ba comité de santé ba góorgóorlu na ba miiré ko wax naa la ne comité de santé yi jënd nañu ay véhicules de liaison boo demee euh, euh, Kaba da gis poste de santé ba am na ay mbaar ay jekk-jekkal ay yeneen yoo xam ne comité de santé ba ñoo ànd ak ICP bi def ko fa au passage maa ngi gërëm samay IGP di gërëm itam comité de santé yi nga xam ne ñooy liggéey ci santé ci liggéey sax alors euh, monsieur le maire ci wàllu euh, courant gisoon nañ fii ñuy wax euh, rek yenn village yi nga xam ne ñoo nekk ci biir commune bu Ndiéyène Sira toog nañ ay at yu bëri ginnaaw bu ngeen bindee ba tokki pour rek am li nga xamante ne moom mooy courant ci dëkk yooyu am na ay dëkk yoo xam ne courant jot na faa dugg am wala duggagul. waaw courant nag moom man damay wax li nga xam ne moom laa gis mooy damay jàpp ne sax discrimination dafa am ci département parce que ci wàllu courant ni mu yéexe ci commune Ndiéyène Sarax ak ni fa état bi yéexe intervenir doy na waar egg na ci sax lu graaw mooy indi nañu ay po ay ay poteau ci vingt élection yi élection yi jeex ñu jël ko élection législative yi élection législative yi passé loolu population Ndiéyène Sarax yëpp ñoo koy déploré man en tant que maire itam wax dëgg yàlla dama koy ñaawlu euh, teewul nag maa ngi am yaakaar parce que euh, am na ay dëkk yoo xam ne programme nañ ko gis nga courant nekk na loo xam ne tuuti kon rek mu gaañu ci élection législative yi passé parce que ministre bi nga xam ne moo fi nekkoon yore woon euh, énergie ak euh, Euh, électrification. muy Thierno Alassane Sall dafa defoon benn tournée bu am solo ci njéer am ay promesses yu am solo ay dëkk yu ñu programmé dëkk askan wi yëpp ñu noonu leen balaa élection yi loolu dana ñëw askan wi gisuñu ca benn poto bu taxaw loolu ndimbalu yàlla moo nu jàppale waaye tuuti kon rek mu xaw nu gaañ nag ci élection yi ñu passé xaw na nu sonal ba fii ma toog di wax ak yow programme yooyu amul benn poto bu ñu samp njéen sax liñuy wax mooy jox nañu MENA li ñuy wax mooy jox nañu phase électricité li ñuy wax mooy jox dugal nañ ko ci phase euh, ci ci 218 cent dix et cetera mais ay simple promesse la gisaguñu dara sotti ci mais teewul nag noo ngi am yaakaar ne incha allah balaa yegg xëy na dinañu ko réaliser mais courant moom mën na maa wax ne commune Ndiéyène Sirakh mooy commune bi gën a néew lu fa état di def ci commune bu Ndiéyène ci commune bu Ndiéyène Sirakh également monsieur le maire ci rek wàllu dem beeg dikk bi yaa ngi wax sànq enclavement bu ñu xoolee Ndiéyène Sirakh euh, ci wàllu piste wala ci walu teli, dafa melni def fa tumuranke ba taxna sax euh, li nga xamne moy route principale bi nga xam de relier ay commune yu bari euh, tay gis nañ ni piste bobu ba léegi dafa nek ci ay jafé jafé euh, te it bu ñuy wax rek dafa nekkoon promos promesse électorale bu ñu doon wax ni bu ngeen ñu and ak ñun da ngeen gis ni route bi ñun daan ci def suñu kem katan bo président Macky Sall mun koo butumer li ni mel est ce que sotti na wala wul ak fan la tollu lu doy war la gis nga Omar ñeen sax dafa enclaver vous complètement Euh, benn pist moo fa am boo xam ne euh, colon yi ñoo ko tàmbali woon euh, defaraatuñu ko defaraatuñu ko ba ci ay jamono bi président Sall di door a toog ñu tàmbali di ko defar mais defar ko defar bu bon ba nga xam ne nii ñun jàpp nañ ne ñàkk defar gi moo gënoon ci ñun defar gi fii ma jamono yi may wax ak yow ci bi ma waxee ak Aseroute la ñu ñëw di ko maasalewaat li ma gën a jaaxal nag mooy Omar Sénégal président ku développer réewam plan euh, Sénégal émergent mais route boobu route Sarax amul benn route bu ko a stratégie ci benn les trois routes nationales yi nekk ci réew mi route boobu moo leen gis nga da ngay Dakar jaar ñëw ñëw jaar Sarax ngay route Touba Euh, jëm Dakar. nga continuer jaar Touba Toul dem Tiwaawoon fi ngay fekk route nationale bi jóge Ndar euh, jëm jëm jëm Dakar. donc mënuma comprendre ñaareel ba mooy Ila Touba bu président Macky Sall bii muy projet bu rëy bi. brutal bi nga xam ne nii moom moo nekk moo nekk xombol fi mu nekk nii muy waa Mbour muy waa Ndiaga muy waa Sandiara ak gox yooyu yëpp. pour ñu yëg ci utiliser euh, euh, brutal boobu ilaa Touba yi mhm. fokk ñu jaar njéer sarax ñëw xombal donc nga gis ne président Wade euh, bitime woon na tiwaawoon ba xombal mhm. président Sall ci biir biroom toog naa fi ma wax ko boobu maa ngi ko fàttali ko keroog bu baax ay kilifa dafoon waaye bi ñu ko bindee daf ko téye ci loxo nday càmmeñam bi may tàggoo moom ne ma lii moom dinañu ko def président Sall nag li ma waxoon vraiment xamuma ko ci muy ko xamné bu waxé ak euh, kilifa la mu wax duko top toppatoo motax tax wóor na ma ne joxe na instruction yi. dégg na ne joxé na instruction yi mais ñim ko jox defuñu ci dara. defu ci dara. waaw lima jaaxal nak te lima jaaxal moy président Sall xam bu baax njëriñ Saraw. parce que 2009 ñew na fa bi muy inauguré euh, électrification bu bu bu njëriñ euh 2002 2002 2009. 2009. 2009, 2009, 2009, 2009 2009, campagne 2009, 2009, 2009, 2009, 2009, 2009, 2009, fermer les yeux <laughs> ku xamul te xam na bu baax ndax ñëw na fa lu tax mu sakk noppam mel ni ku déggul te dégg na ndax wax naa ko ba tàyyi donc route boobu route la bu xam ne mëneesu la liggéeyal Sénégal fii mu nekk nii ci wàllu infrastructure routière lu ko gën a am solo moo tax yaakaar naa bu baax ne euh, war nañu ko def beneen bi ci topp mooy c'est honte pour njiyeen sarax pour pour ak pour sax moom président parce que gis nga département Thiès yëpp benn commune u Ndiéyène Sarax moo ci commune boo xam ne nii fi mu ne pour nga dem fa problème ngay am yi ci des yëpp but am na route bu ñu biti benn jóge ci chef lieu départemental bi mhm. euh, chef lieu régional bi ba àgg fa foofu daal euh, Omar nun jaaxle nañu ci te yaakaar naa ne dinañu nu wallu bu baax a baax man nag euh, am naa ci lu ma metti lool gis nga kilifa bu amee yéene ba wax ñamu yilif ñoo ko war a jàppale président nag daf ko manqué ñu ko jàppale ñi ko jàpp ñi ko war a jàppale ci di ko fàttali ñi ko war a jàppale ci ay promesse tam ñu di ci taxaw ba mu sotti ñi ko war a jàppale ci biir njaboot gi fa mu wërta taxaw ñu taxaw fa vraiment man jàpp naa ne la ñu war a def defuñu ko. maanaam ci wàllu service yi moo am ay lapsus. waaw jàpp naa ne am nay lapsis. Mhm, parce que booba léegi joxe na instruction mais ba léegi mënu leen gis dara. joxe na instruction nee na dina ko def toogaat naa ak moom bi ñuy waaj élection yi mu génne loo ko première ministre ne ma ndax route bii la mën a ko waaw euh, bon mais dara gars yi jéeguñu dara. Mhm. man li ma jàpp mooy. moom xëy na li ko war ma nga ca mooy kilifa di jël ay décision waaye ñi war a exécuter moom. defuñu ko bu boobaa nag damay jàpp ne moom itam bu xabaar yi eggee ci moom war na jëlaat nag ay mandukaay ba xool njobootam nag ba bu leen nee def leen ñu def. ñu def alors très bien mu nekk rigueur bi nga xam ne kon moom moo ci war a imposé wu. Mhm. Euh, ci wàllu weneen wi euh, rek bu ñuy xool ci wàllu réseau hydraulique dañuy gis ni Ndiéyène Sirah nekk na ci euh, zone boo xamante ne rek zone bu extante la parce que dafa enclavé mais am na ay jafe-jafe est wàllu ndox mi tamit noonu la fa jafe-jafe yi ngi sant yàlla bu baax bi may ñëw fekk naa wax dëgg yàlla ndox jafe Ndiéyène Sirah benn foras moo fa nekkoon njéen sarax ak beneen forage bu nekk kabal mënuñu mënuñu jox ndox genn wàllu dëkk ba fii ma toog di wax ak yow 37 villages yi nekk njéen sarax ak amoy yëpp yëpp yëpp yëpp yóbbu naa fa réseau bi euh, beneen bi ci topp mooy néew nga gis commune boo xam ne dafa gas foras, man ci partenariat gas naa forage tabax chateau d'eau équipé ko ba fii ma toog di wax ak yow ndox mu ñu naan moom njéen sarax ñu ngi ciy sant yàlla xam naa am lu doy sëkk ba ñépp ne doy na yombul waaye njàmbat ci wàllu ndox moom déggatuma ko dëkk bu yépp yóbbu naa fa réseau bi alors ci beneen wàllu wi dañuy ne président Macky Sall dafa teg PSE muy plan Sénégal émergent mais teg na PUDC mhm. mais tey est-ce que njéen sarax gis ngeen seen bopp ci PUDC dégg laa ci am waxoon naa la ne fii mas na am fi am émission nga di ma laaj PUDC mën a la nit du gëm lu mu gisul

bis alors monsieur le maire euh, Diène Sira dafa nekk commune boo xamante tamit commune stratégique la ci wàllu li nga xam rek li ñuy wax ci wàllu collectivité locale parce que tey bu ñu xoolee euh, chef religieux nga imam nga parce que nduuf yaa ko jiite mais tey li ñuy wax ci apport ci talibé ci euh, que ana yam jafe ngeen ci ba nangu loxo Macky Sall parce que Macky Sall loxo waaw xam nga man damaa gëm ne nit ñi ñëw di sukk ci sama kanam di ma dénk seen bopp bu ñu ñëwee dañuy wax ni denk naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira toujours àdduna la ñuy jiital euh, te gis naa itam ne suñu borom ci alxuraan saa bu fi buy wax day jiital àdduna door ci teg àllaaxira gis naa ne salawatullahi wa salaamuhu alayhi moom mi yàlla yónni ci ñun li mun wax mooy defal sa àdduna liggéeyalal sa àdduna ba mel ni doo fi jógee liggéeyalal sa àllaaxira ba mel ni da jàpp ne suba du la fi fekk donc loolu moo tax ma jàpp ne pour taxawu njaboot gi pour taxawu gox bi euh, du ma du ma du ma génne sama loxo ci li nga xam ne mooy doxal seen àdduna parce que boo demee ca jàkk ja pour ñu noddu dañuy jëfandikoo courant yaa ngi ma tudd ndox léegi ku wérul doo jàmm yàlla kon nag sub sëriñ toogee ca biir këram ne yooyu yépp sama yoon nekku ci li koy doxal sama yoon nekku ci man damaa jàpp ne njuumte la moo tax ma wàccoon ne sama njaboot gi dootuma ko bàyyi ca loxoy kenn ku leen di foye loolu moo ma dugaloon ci politique bi ma duggee ci politique itam ma àndoon nag ak président Abdoulaye maa ngi koy tagg ko kañ parce que jàppale woon na ma ci jamonoom la mu ma war a jàppale li ca bari def na ko def lépp yombul waaye defoon na lu am solo loolu moo ma may euh, sincère bu ma sa jaar njiyeen sarax rek réalisé naa ko loo deful euh, bi ñu demee nag ba président Sall ñëw président Sall wool ma boppam ne ma kaay ñu liggéeyal réew mi euh, ñaari yëf tax na ma ànd ak moom man moomuma gàntu dogalu yàlla te yàlla mooy tànn nit moo koy jox nguur kon yàlla moo ko tànn jox ko nguur waruma moomuma di opposé dogalu yàlla beneen bi ci te si tam mooy askan wi ak njaboot gi ñi ma yaakaar li ñu yaakaar yàlla mi ko moom mi ngi ko teg ci loxo Macky Sall beneen bii itam mooy gis naa ne am na yar ak teggin ci jëflante bi muy jëflante ak man ak waxi ni muy waxee ak man ma am yaakaar ci moom ma tàllal ko loxo ànd ak moom voilà ah. loolu moo tax ma ànd ak moom très bien alors euh, bu ñuy xool rek euh, ci wàllu situation politique Ndiéyène Sira ci référendum bi ñu génn am na fu ngeen toll woon ci département bi euh, tey législative yi ñu génn fekk na monsieur le maire te fas yéene ànd ak président Macky Sall travaillé ci Benno Bokk Yaakaar ci wàllu résultat tey bu ñuy xool ci wàllu situation politique bi ci département bi ak Ndiéyène Sira lan nga ciy àddu. Omar ci référendum yi président Sall dafa ñëw ci réew mi rek woo ma ma ne ko man dinaa la jàppale. waaye ñu dem ba local 2014 xale yi ay xale wan ko ne ko nun na nañu gañe Ndiéyène Sarax ma dellu arrière taxaw pour wan président ne ko Ndiéyène Sarax moom man maa ko mën a gañe ma dem gañe ko ci turu opposition ñu dikkaat ci référendum xale yooyu di wanaat président ne léegi de am nañu doole Ndiéyène Sarax ma dellu si waat wan président Sall ne ko Ndiéyène Sarax ma ànd ak yow dama koy gañe ma ñàkk ànd ak yow dama koy gañe ma dem wan ko ci référendum yi euh, dëggal loolu bi mu jàllee nag ma xam ne li ma koy wan war na ko gis ma ñëw nag ànd si ak moom Omar foofu dinaa fi taxaw tuuti ma wax la gis nga du ma mës a nangu man ku may traité eh, ci dimension locale man dépassé naa dimension locale dépassé naa dimension régionale jàll naa ci dimension nationale même je peux dire maa ngi ci dimension internationale parce que tey muy muy muy muy Amérique muy Europe muy Afrique amul benn réew boo tax boo xam ne tey mënuma fa dem dajale fa mbooloo wax ak ñoom ñu déglu ma mhm. euh, ci euh, région Thiès département Thiès nit ñi dañuy juum politiciens yi dañuy juum parce que bu ñu xoolee ne man njéem sax rek laa géré mhm. xam nga man coordonné naa département Thiès mhm. 2012 euh, man maa nekkoon euh, tête de liste départementale bu Thiès. <laughs> te itam élection ya ko jiitu bi nga xamee ni fii ci Thiès demoon nañu ay jamono ba président Wade kenn ñi mu ko fee wooteel man maa osé wooteel ko réunion ci Al Azhar euh, ci ci ci ci bii nekk ci Thiès. Mhm. taxawal ak parti bi fii. Mhm. donc kon du ma nekkuma nit ku ñuy traité ci. niveau local mhm. dimension locale. la bi ñu demee référendum ànduma ak ñoom def nañu tout lu ñu man def nañ ko mais bu ñu gañee département bi it ay deux mille quelque vingt la ñu ko gañee mhm. mais bi ma àndee ak ñoom nu ànd liggéey ànd ak sama collègue yi maire yi ñun ñëpp nu ànd liggéey ci dimension départementale mais plus de vingt huit voix la jiitoo suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo fi raw mhm. vingt huit mille vingt huit plus de vingt huit mille mhm. waaw euh, xam nga ku jóge ci ku jóge ci deux mille dem ci vingt huit mille doxantu nga ak jafe-jafe yi nga xam ne ci la ñu demee l'après des élections ñu nekk ba élections yi jege Thierno mi nga xam ne moom yoroloon commune bi dem yoonam ak yeneen ak yeneen. 2019 euh, ngi ñëw. Mm-hmm. li ma yaakaar mooy président Sall bu defee li mu war a def. incha allah waxuma département bi waaye commune bi mën nañ ko gagné. Mm-hmm. alors monsieur le maire mu mel ni yow euh, tey dañuy wax euh, li nga xam ne mooy Ndiéyène Sira également tey yaa fay responsable yaay coordonnateur APR bi. parce que te yaa ngi ci biir APR mais sa Diouf mu ngi fa est-ce que mu nga ñëw leer la tuuti sa diggante ak euh, Meyssa Diouf waa APR. <laughs> bu ñu delluwaatee bu ñu delluwaatee njéen sama Omar damay bëgg dama amoon bi may ñëw ci commune bi dama amoon ñetti ñetti yëf yu xam ne moom laa jiitaloon mooy éducation euh, éducation ah. hydraulique santé bo da nga tudd éducation da nga tudd hydraulique tudd santé te tuddoo éducation voilà donc mm-hmm. éducation bëggoon naa balaa may jàll ci leneen ma wax ci Ndiéyène Sara mm-hmm. bi may ñëw maa ngi fa fekk fukki établissement scolaire ak euh, ak ak ñaar primaire mm-hmm. euh, ak benn CM boo xam ne ñaari classe la am te kenn miiré wu ko aujourd'hui école primaire yi miiré naa leen ba ñaari école moo ma dese. créé euh, naa benn école boo xam ne école primaire la muy Bumbardiack. créé naa ñaari école primaire muy fa bu Nduuf ak EFA bu Njéyeen Saraf. fii ma toll di wax ak yow abri provisoire am na waaye néew na Njéyeen Saraf. ci biir fi mu nekk nii maa nga fay tabax quatre classes boo demee biir Njéyeen Saraf maa ngi tabax deux boo demee Nduuf maa ngi tabax deux yoonu état nekku ci. dinaa taxaw foofu nag ma wax ne boo xoolee réalisation yi may wax nii. Mm-hmm. yi ma mm-hmm. état defu ci dara. coopération décentralisée ak fonds propre a jàpp nak ne kon état war na xoolaat njiyeen sarax bu baax mm. xoolaat doxalinam ak euh, ak njiyeen sarax ci éducation nak bo demee ci lycée ba miire nako ko ak samay partenaire euh, wayé classe ya tay tabax nañ ko ba classe ya ëpp ma am ay classe nak pour mobiliser am classe am ay classe mm. équipé classe yi état desewul dara lu affecté ay kat loolu te tic ci Dieune Sarah nek commune bo xamné environ presque quarante mille d' habitants. ci bokku ci commune yi ëpp ci département bi. bo xolé résultat yi muy génn ci département bi bokk ci yi nga gis né lu ëpp 75 euh, élèves am nañu BFEM. ñu di leen tasaare di leen yóbbu fé yóbbu fé yóbbu fé li ëpp ci ñoom seen da fay yàqu. bo démé Kaba depuis des années maa ngi demandé CM de proximité té amna loko dé Mm-hmm. am naa loko yi muy sem bi muy lycée bi lu ci nekk am naa fu ñu ko defee mm-hmm. dara desewul état lu dul mu affecté loolu jafe jàpp naa it loolu jafe-jafe la également parce que foofu dañ ko bëggoon def benn kii question boo xam ne mm-hmm. parce que ndongo daara yi seen bopp ñooy bind ci miiru njëyeen siré yi nous réclamons un lycée voilà di wax euh, une commune sant lycée foo fu ma jaar maire monsieur le maire yow yow yow suñu sëriñ loo wax dinañu ko def nu wate waaye nag waa jànge ñu ngi nuy rey ci ñu ngi nuy rey maa ngi maa ngi wax président Macky ñu wallunu nag. mais mais wàññi sa sarax élèves yi dañu am droit ci ci ci ci jàng. ci ay lycée ay CM parce que tey mhm. monsieur le maire dañuy ñëw tuuti. parce que ba waxee léegi ci wàllu infra réalisation yi nga def. Mhm. Euh, te Ndiéyène Sirakh defe naa ni amul yenn capacité. Mhm. yi nga xamante ne dina ko permettre mu mun a réaliser de tels ouvrages. wala infrastructure yi mel. Euh, koppar yi fan la am na coopération mais am na fonds propre fan ngay jëlee yooyu koppar. yàlla daf ma defal nag ma am ressource humaine. Euh, am amna ay relation ak ñeneen tudd naa la ne la euh, almaa yi ñoom ñoonu tabaxal euh, poste santé bu Kaba tudd naa la ne sapona yi ak samay partenaires surtout plan international développement maa ngi koy gërëm ñooñu jàppale ci poste de santé bu bu laxteen mais mais mais mais même coréens yi jàppale nañu mhm. donc kon ñun fi mu nekk nii may waxee yow complexe islamique di nga xam ne moom moo nekk nduuf fi mu nekk nii ku wetee ñoo ma jàppale ma tabax ko ak euh, plus de trente cinq millions damaa mhm. ngi seenu yeneen jàppale feneen donc euh, li ñuy def mooy bu état mënul lépp itam nu solu sunu dàll te jéem a mbëkk fu nekk jéem a for mën a jëmmal li ni mel mais daal li nga xamante ne tamit mooy franco arab yi bëri nañu parce que bu ñu xoolee seen commune un peu kii mhm. waaw parce que réew commune la ñu yor boo xam ne cent pour cent musulman ñëpp ay musulman lañu te li ëpp ci population ba daara ya dafa bari woon mhm. li ñu bëggoon mooy euh, bëgg nañu jàng waaye bëgguñu bàyyi seen diine loolu moo tax man ma bëgg fexe xale yi mën a taxawu seen diine taxawu seen àdduna ma créé franco arabe yi noonu it lay defee tout bi nga xamee ne gis naa ne këréena franco arabe yi te daara yi ñu ngi fi moo tax ma taxawal complexe islamique boobu bëgg ko def daara moderne gone yi continuer seen français même anglais yi mais ñu mokkal seen alxuraan également ci wàllu rek li nga xam ne mooy politique bi bu ñu xoolee euh, am nga ay adversaire politique yi nga xam ne wax nga référendum yi ak législative yi def nga comparaison bi tey également ñoom Meyssa Diop di ay responsable apéris seen taxawaay waaw Meyssa daal Euh, vraiment bëgguma won sax tudd ko ci ci émission bi parce que sama aada daf ci bokkul tudd nit fu mu nekkul mais li xew te ñepp xam ko wa département ci xam ko mooy ci élection législative yi moom dafa and ak and euh, taxaw Sénégal euh, watel len ci ci législative yi and ak suñu mbokk l'ancien président conseil régional ñom ñoo and contre Benno Bokk Yaakaar waaye maa ngi sant yàlla malgré la muy jafe lépp nga xam ne kilifaay Benno Bokk Yaakaar yi dañoo fermé woon les yeux teel naa ko yëg wax leen ne leen lii mooy ñëw teewut ñu fab sax alalu Benno Bokk Yaakaar jox leen ko pour ñu utiliser ko contre nous mais teewul yàlla dimbali nañu euh, ba nu gagné leen dinaa taxaw foofu moo wax ne gis nga njéen sarax dafa am importance ci département Thiès gis nga gis nga opposition bii nekk Thiès te am fi doole seen bëgg-bëgg yépp mooy njéen sarax basculé lu ne daj nañu ko ci nag depuis 2007 ba léegi waaye yàlla dogal na amaguñu ci ndam nga téye ko sa loxo ma téye ko ci sama loxo xam nga xawul yomb nag parce ka fa nekk nek na président conseil rural bi juroom ñetti at ah. mhm. parce que dañoo prolongé woon booba euh, mandat yi euh, nekk na it premier secrétaire élu de député conseil régional de Thiès mhm. pendant cinq ans nekk na itam président conseil régional de Thiès euh, garde l'intérim bi bi suñu mbokk Idrissa Camara Fatou donc man na dara mhm. mais teewul nag noo ngi sant yàlla ça buñ ci demee vi village suñu yéen sarax daal ñoom mën nañu gis ne dinañu wate foofu mais boo demee ci biir commune bi la mu fay am dootu bari. Hmm. Euh, bu dee Maysa la nag bon maa ngi koy woo ne ko <laughs> na dellu waat ci sagoom hmm. te xoolaat bu baax taxawaayam. Hmm. moo gën euh, am na loo xam ne loolu moo ko gën. très bien monsieur le maire euh, tey bu ñuy wax commune bu Thiès nekk na jafe département Thiès tey douze commune la. trois communes moy commune yi nga xam ñom ñoom ñoo nekk ci ville bu Thiès tay nek na jafe-jafe ci APR wala Benno Bokk Yaakaar gis nañu ay mouvement de soutien di jóge fune euh di ñëw pour walu ci président euh pour rek mëna jël Thiès teg ko ci loxo Benno Bokk Yaakaar li ni mel tey yow lan mo ci sa xalat en tant que responsable mais également en tant que euh, une personnalité religieuse bi nga xam ne ñëpp xam sa dayo ci walu diine ci Omar Thiès nga dëkk wa Thiès jambar lañu ci Benno Bokk Yaakaar

moom moo war a xoolaat commune cees mu xool responsable yi jàngat ko xool situation Thiès bi situation sociale bi xool ko xool nan la war a taxawee Thiès man jàpp naa ne ni ñu war a taxawee commune ni ñu war a taxawoo commune Thiès ci wàllu politique ñi ñu fi war a sant ñi ñu war a waxal ñi ñu war a dooleel bu ñu leen dooleelee président Sall dana dana dana gañe Thiès parce que deful cees dara lu ñu koy noonoo mm-hmm. ginnaaw deful cees dara lu ñu koy noonoo te defal na leen defal na len parce que bi mu les sentiers de Thiès defar na ko defal na len parce que fi mu nekk nii boo xoolee ci biir Thiès nga gis fi Promoville defal na len parce que ay doomu Thiès yu bari ñor dina leen dugal leen ci régime am ñuy liggéey kon defal na leen waaye nag management bi des management politique bi des na des na dama ne mhm. ku perte Kawsara mhm. perte Kër Cheikh perte Mourid gi perte ka euh, euh, kaw kaw Madina Fall Madina Fall mais doo am Thiès mhm man ci le système maanaam daal monsieur le maire yow da ngay def accent ci électorat mouride bi électorat mouride bi mais kenn kenn kenn taxawu kan moo leen taxawu kan lañ samp Thiès pour ñooñu gis te nag gis nga dafa am lo xam ne ay réalité la ku ko tudd itam muy lu am gis nga suñu kilifa diine yi ak suñu tariqa yi ba ba abadan bu wakul waxul joxe ndigalit seen xool ak seen junju ndigal la te nit ñi dañu koy topp parce que nit dafa fonk li mu gëm dama jàpp ne taxawaay bi fii ci biir Thiès daal moom mat a taxaw seetlu. Uh-huh. voilà loolu laa jàpp. alors monsieur le maire li nga xam ne moom mooy tey wax nañ ci euh, commune bu si Sira ak département bi région bi au niveau national dafa mel ni tiitaange am na ci li nga xam te rek moom mooy toujours nguur bi parce que ñu ngi dégg ñu bëri opposition bi di leen euh, ŋànk naan daal euh, li nga xam ne moom la doon séntu ci Macky Sall gisuñu ko. au niveau national euh, ba ragal nañu sax 2019 bii Macky Sall day ñàkk nguur gi est-ce que yéen ñi nga xam ne tey da ngeen fare ci moom ci taxawaay boobu euh, lan ngeen ci àddu. ah xanaa kunde din mu rey sa maam boo séenee lu ñuul war a daw dafa am lu daloon PDS bi fi nekkoon ba ñu perte pouvoir bi. loolu nag bu fekkee ne noo ngi koy séen ci suñu biirum làng dinañu mën a tiit mooy xuloo bu dul jeex siisante bu dul jeex. kenn ku nekk defe na bu sa morom feeñee yow nga suulu ñi nga xam ne ñoo di ñoo ñëw fekk ci président Macky Sall ñi ñu fa fekkoon di leen xool bëtu bokk leen ci loolu mooy musiba mi nga xam ne man gis naa ko fi mu ne ne président Sall wax dëgg yàlla bu dëgg dee dëgg ku ko xool xam ne am na bilan am na bilan PIDC bi nga duddu fii léegi am na même deful jéem sarax dara mais am na feneen fu mu def lu bari euh, boo demee tey euh, fu mel ni Thiès mais Thiès tey beneen xar kanam la yor aéroport bi mi ngi fii autoroute yi mi ngi fii yeneen ak yeneen mi ngi fii boo demee Dakar noonu kon président am na bilan waaye ñi nga xam ne ñoo ànd ak président ñoo war a wëlbatikuwaat xoolaat seen bopp te ñu fàttu ci ab néeg waxtaan waxtaanu biir ne président Sall tam delluwaat nag am fulla ak fayda te tëyee tëyee njabootam gi teg leen ci aw yoon ku nangoo ànd ak moom tege ci yoon wi falilahil am ku mënta ànd ak moom tege ci kaw yoon wi mu xam ne mu wàcc la te tege ci kaw yoon wi moo koy may doole euh, man na yaakaar naa ne incha allahu 2019 dina nu gagné élection yi man loolu laa gëm présidentielle waaw man présidentielle yi dama gëm ne président dina gagné xam nga lu tax nit ñi dafa am ñuy politique politique am ñoo xam ne réew mi lañu gëm ah. te réew mi nag ku ko gëm di nga xam ne fii mu nekk nii jële fi président Sall teg fi yeneen musiba la parce que réew mi day reculer jëm gannaaw kii dem na ba maîtriser na dossier yi xam na réew mi am na yéene ji ñi ngi jéego di dox mais nañu ko bàyyi jox ko deuxième mandat mu eggale li mu bëgg euh, li mu yéene ci réew mi bu ko defee keneen ku man dellu si waa réew mi xool ak yow bu ñu la wóoloo dénk la yaakaar naa ne ñi nga xam ne ñoom defuñu politique te ñoo mën a ñoo ëpp ñu ci bari bu soobee yàlla dinañu jàppale président Sall waaye président Sall it ba nga xam ne moom la Mimi Touré daan wax muy accélérer la cadence la cadence mm-hmm. mais fi mu ne accélérer la cadence jot na de mm-hmm. jot na gis nga campagne électorale mm-hmm. kenn du ci gagné ay élection élection dañu koy gagné avant campagne électorale te fi mu ne suñu diggante ak élection li programme yi. projet yi te gis nga président. na xam ne ñi mu jël ndombo tànk yi jox leen ko am na ci ñun war nañ ko bu yàgg. parce que war ko mooy li mu leen di defloo defuñu ko te bu ñu dikkee ci kanamam ne ko lépp baax na président. gis nga képp koo xam ne yaa ngi ñëw naan ko lépp baax na lépp baax na lépp baax na. ci warkat yooyu nga bokk. parce que lépp baaxul. dañu war a ñëw ne ko lii baax na président lii nag buñ ko defee mu gën a baax. voilà monsieur le maire xamna ni rek ni euh, ngi ñëw ci euh, li nga xamantene mom moy euh, fin wu émission bi ndax té temps bi jeex na am sax luñ ci laal ci 7 minutes tay buñu wax monsieur le maire lan moy doon say cadeau yu mujj. xanaa di di soññu sénégalais yi suñu mbokku sénégalais yi ñu sensé ni ñuy defee politique ci Sénégal ni ñuy defee politique moy bo bëggee falo lu ne la lay jaral lu ne ngay wax lu ne ngay def loo gis mu baax nga jéem koo suul loo gis muy sikk nga wax ko loolu baaxul mais bëgg yàlla mooy fal boo bëggee falu yi nekkal ci dëgg tey wax dëgg ñi nga xam ne ñoo nekk ci pouvoir bi itam conserver pouvoir bi souvent da leen di jaral lu ne ba lu nekk ñu mën ko wax loolu itam gënul yàlla moo fiy teg nit moo fiy jële nit nanu àndandoo ki fi te yàlla du juum nanu àndandoo ki fi yàlla teg nu jàppale ko taxawu ko te wan ko ku gis yoon wu baax jéem ko ko won président yi na ubbi ay buntam te déglu nit ñi te bañ a tëju parce que kilifa bu ñi ko naan baax na rek rekk lay gis ah mën naa umpule la baaxul te bu umpule la baaxul du ko mën a defar

président électrification bi ni mu amee ci réew mi mi ngi jëm 60 pour cent au niveau national njiyeen sarax àggagul 15 pour cent na ci taxaw jàppale mu loolu su ko defee incha allahu la nu fa bëgg noonu yàlla mën na nañu caa dimbali euh, beneen bi ci des mooy njiyeen sarax ak feneen ferme naataange yi. lu am solo la te président amoon na amoon na programme bi. président na na yebal ay ndaw. lu gëstul ko lu tax ferme naataange yi ba tey tàmbaliwul tàmbaliwul man am na lu ma ci xam. na gëstu ba xam ferme naataange yooyu lu ko tax a taxaw. na xool au niveau de ANIDA. xool ak ñi ñu ko seqal. ba xam ferme yooyu lu tax lu tax lu tax financement yi taxaw lu tax financé wuñu ko am na lu tax financé wuñu ko. léegi na ko gëstu. Hmm, bu ko laajee ñu ko war a laaj dinañ ci xam dara. voilà mbokk yi xariñ doon seetaan suñu émission monsieur le maire sur Thiès TV mu doon euh, le maire Serigne Fallou Fall euh, di maire u nekk également chef religieux imam ratib bu Nduuf mais tamit euh, nekk rek kenn ci ay ñooñu Macky Sall également ambassadeur plénipotentiaire mbokk yi xariñ doon seetaan dañ leen jox dig daje ci benn numéro incha allah